ok ñu ngi fii ak Dame Sène euh, di artiste chanteur euh, tey ñu dajee fii ci Magal Touba di centième édition bi fii ci New York ban message ngay lancé pour la communauté mouride particulièrement la communauté musulmane di nekk fii ci États-Unis waaw di wax alhamdulilahi rabil alamin rek di santaat yàlla bu baax di jullit Seydina Mohamed di sant suñu ñaari waajur di sant sama sëriñ ba sëriñ Saliou Touré di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér di wax jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba tey nag lii mbégte la ndax lu day ni màggal mu fekk ñu fii Amérique New York ñu màggalee fi di ko sant Serigne Touba lii nag mooy firnde ni Bamba partout Bamba fépp am na ndax fu waay ne tey taalibe mën nga ko foo màggale waaye nag contentement gi ma gën a am tey mooy tey taalibe ma gis say ndajaloo fii ci Amérique di ko fi màggalee lii moo lay wan Serigne Touba amul morom ndax boo téenee seen lii nga xool muy église ñu dem di fa jàng xasida bi di fa durus nga war a xam sëñ Touba kenn la ñuy ñaan nag yàlla suñu borom mu defal jàmm ci àdduna bi rawatina Sénégal di bëggee nag bépp mbokku taalibe di kontaan ci taalibe Serigne Touba yëpp nag ndax xam nañ ni maanaam tey jii Serigne Touba daf ñu jaral ba tax tey fii ñu daje di ko fi waxtaane muy Amérique ku ne xam nañ tey dëkk bii tey ay Touba ba ko moom waaye tey Serigne Touba ay mbirama yaatu ba foo dem ci àdduna ñu ngi ko fay màggal muy amerique di Europe bi foo mën a dem ci àdduna kon nag sant sëñ Touba war nañu sant sëñ Touba war na képp kuy jaam ndax coono ga mu dajoon tey ba yàlla sunu borom may ndam lii mu am tey kon nag na ñëpp maase na jërëjëf sëriñ Touba. jërëjëf sëriñ Touba. di am contentement bu mag nag ndax lii dafa dafa sedd xol ndax foo tourné taalibe sëñ Touba yaa ngi fi xoolal lii boo xoolee li xew fi nga war a xam ni sëñ Touba kenn la ñu koy santaat bu baax nag. di ñaan yàlla suñu borom nag Serigne Touba nangu ñu suñu taalibe yàlla nañu Serigne Touba nangul suñu taalibe lii doy na waar lii doy na waar wax dëgg yàlla ñu ñaan nag jàmm nag ci àdduna bi yëpp nag ndax ku ne xam na ni maanaam bu jàmm amul yëpp du am kon nag ñu ngi santaat yàlla bu baax moom mi nga xam ne mooy borom jaami mooy sàkk jaami mooy borom jàmm mooy borom xéwal mu defal ñëpp ay xéwal bépp taalibe bépp nit bépp jullit foo mën a ne ci àdduna xéwal ya nga fa wuti yàlla nga koy am la nga bëgg ci dëkk ba nga ne yàlla nga ko am mu yomb la lool ña nekk senegal yàlla defal leen jàmm ak tawféex ñi bëgg dem dem ñi bëgg a toog toog waaye daal na ñëpp amee xéwal ñëpp di am jàmm ñëpp di am wér rek man daal wax dëgg yàlla loolu laa xamoon ni dinaa ko ci sànni ci màggal gii wax dëgg yàlla taxaw sa mbokk taalibe rek mu doon koo xam ne moom it jàmbaar la ci waar wi yoon wi jàmbaar la ci lool ndax boo ko xoolee xam ni kii waaj na ndax bés dañ koy waaj lu day ni màggal képp kuy murit da nga ko war di waaj ñu ñaan yàlla suñu borom nag yàlla nañ ko yàgg di waaj di ko yàgg di fekke waaw fii nag tey moom xol yëpp set nañ wax dëgg yàlla xol yëpp set en tant que artiste euh, chanteur ñu gis sa benn mbokk artiste danseuse euh, yàlla def mu génn àdduna ci ay anam yoo xam ne yu jéggi dayoo la di Aziz euh, Ba Abdou Aziz Ba ban commentaire di ñaan yàlla yërëm ko jéggal ko ak képp ku génn àdduna yàlla yërëm la jéggal la ndax ku ne xam na ni maanaam deedu jaas waaye comme paak bu ñu daas bu nee xaas fekk la ak say laas jar nga wut paas ndax yow benn bagage boo amee ñaanu xaas sax dañ lay miiraas ku ci nekk war ngaa bàyyi xel ni dee dina ñëw bés nga ñëw nga génn àdduna loolu mu ngi ci xel yëpp nit ñi nag des fois dafa am loo xam ne day nekk seen xel yi nekk ci ñoom dañ koy gëm mais maanaam kenn ñaanu yàlla gàtt fan ku ne gudd fan ngay ñaan yàlla waaye kenn xamul ndax di nga gudd fan wala da ngay gàtt fan yàlla naka xam moo tax nag saa su ne nag war ñoo fekk ci lu baax ci lu neex suñu borom ñu koy ñaan yàlla suñu borom yàlla bëri na tey kenn xamul fi kenn jëm kenn xamul fooy mujj yawit dañuy yàlla suñu borom mu kattan nañu doole ñu ba pare xir ñu ci boppam lafal ñu tat dàqal ñu seytaane di ñu gën a musal ci ay ñaaw téef ak yu bon yàlla nañu yàlla dolli sutura yàlla di ñu sàmmal boppam parce que tolluñ jamono joo xam ne ku ci nekk rek booy ñaan yàlla suñu borom mu teel la boppam nga dénk sa bopp yàlla ndax sécurité. mënta doy ci kenn mënta doy ci fenn yàlla rek mën a sécuriser nit ñi ndax tey nit ku nekk rek boo doon dox tey armée tiim la sax sa waay foo dem bu toppale it lii la war a dal dalay dal kon nag nañ santaat yàlla bu baax tey ñaanal Aziz ak bépp jullit bu faatu yàlla yërëm la xaaral àjjana yàlla bëri na yërmande yàlla bëri na yërmande yàlla yërëm ñëpp may ñëpp jàmm ak taw féex la xew Sénégal nag luñ naan bu jeexul yàlla na wàññeeku waaye yàlla na jeex ndax dëgg yàlla loo xam ne la doy na waar tamit na te kenn xamewu ko woon image Sénégal kon nag nañu gën a moytu ñiy def ñaawteef yooyu ñoom it nañ delloo si waa seen xel te xam ni àdduna dara jar ko li ngay def nit ki pour jël alalam ba di ko faagagal di jël bakkanam wax dëgg yàlla loolu mën naa ñàkk tey boo ko wuti woon di ko am ñuy wax ñëpp nag nañ dem liggéeyi te xam ni yëf yi jom kese la ak fulla ak fayda ak ak ngëm ndax yàlla boo ko yaakaaree wóolu ko yàlla bu fekkee nee nga mooy sunu borom te moom mooy joxe mooy xañe lu mu la jox sante ko ko lu mu la xañ nga xam ne moom la ndax lépp loo am sante ko yàlla lépp loo ñàkkit jàppal ni am nga ko tane kon na nit ñi delluwaat seen xel ci yàlla suñu borom te xam ne àdduna na solo te lépp dafay jeex. ndax ci wàllum. waaw man nag yàlla def na maanaam euh, xamante wuñu woon noonu bu baax ku ci nekk da nga xam nga sa morom daal waaye comme comme xaritoo xaritoo bi war waaye comme ñoo bokkoon métier mi rek lépp benn la woon waaw comme xaritoo ba ca waroon nag. wax dëgg yàlla amuloon sama diggante ak moom waaw man moom wax dëgg yàlla bokkuma ak ñii tricher ak affaire yooyu ndax buy amee rek gars yi ku ci nekk maanaam bëgg a doon xarit wala bëgg a doon jegenaay waaye nag ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom jéggal ko yërëm ko ndax yàlla ay nitam a ngi fu ne léeg-léeg ñu gis la ngay fecc wala ñu gis la ñu yaakaar nit ku bon fekk nit ku baax nga suñu borom maanaam mooy fekk nitam dugal ko foo xam ni danga nga naan accam fekk yow loolu maanaam waru la sa diggante ak doomu aadama bi kon nag yàlla moo xam ku baax moo xam ku bon moo xam kuy dem àjjana moo xam kuy dem safara yàlla na ñëpp dem àjjana yàlla na ñëpp dem àjjana yàlla na ñëpp dem àjjana te xam naa ni nit ñi moom léeg nga gis koo xam ne dina def loo xam sax naka su dul noonu fekk du ko tey bu ñu war di bàyyi yàlla muy kiyal boppam ndax moo sàkk jaam te lu am moom la ndax nit ki di nga ñëw jam ko paaka léegi fekk yow intention nga am waaye yàllaa ko rey ku nekk nag dee ak fukk sunu borom tuddee kon nag nañ delloo siwaat xel yi te xam ni àdduna dara yàggu dara jaru ko fi nag dangi dang géeg yi yëpp rek lu ñu suturul rek moo tax ñu koy wut ndax nit a ngi tabax këram mu mu mu waay mu rafet lool njabootama tax mu tabax ko pour ëllëg bu dëddoo nit tabax na kër bu mu àgg dugg ca nit jënd na oto dugg dawalu ko nit jor na ay milliardaire ba ko fi kon nag lu fi jar maanaam ñiy xëccoo wala ñuy xiroo ak ñuy ŋaayoo laa gisul ci àdduna yàlla nañ yàlla dollee suturaal yàlla bàyyi ñu suñu xel yàlla may ñu xolu yërmande yàlla may ñu ñu mën a muñ parce que tamit am na yoo xam boo mënta muñ doo ko mën ndax léeg-léeg nga sa am dara nga ne lii mu am war naa ko mën a am ba tax nga def ñaaw teef te du ko jar kon na yàlla yàlla doolu sutura te lafal ñu cat dàqal ñu seytaane mosoon ci luy lor. d'accord merci beaucoup. jërëjëf kontaan naa.